muy li yëglekaay yi xëyee ñu ànd ceek Mame Abdoulaye gundoo Ndoye dina gannaaw wor gi day moom Mimi Touré ma ngay sàllal ñi ku Walf Quotidien daal di may xamal ne njort na ni moom président ko trahir Mimi Touré daal di tàmbali nag yoon wu wees yoo xam ni ma ngi koy rëddal boppam moom Mimi Touré dina am place ci opposition bi am déet en tout cas Walf Quotidien daal dinay samp laaj moom Le Quotidien Le Quotidien daal di may xamal na ci pecc mi de ma bés bi le jour daal dina xanaa ba présidentielle moom Mimi Touré njort nañu daal ma nga ca fas yéene doon candidat Benno Bokk Yaakaar nag war a xar ñaar ci digg bi source a daal di may xamal ne mimi mouvement mimi lay taxawal mouvement pour l'intégrité le mérite et l'indépendance yéene kaay bi ne ma candidate lay doon atub 2024 ci mu leer xàll na yoonam moom Mimi Touré fas yéene nag jaamaarloo ak président Macky Sall te kenn du ci mën lenn direct news ne ma loo ci manti déggit moom nguuru Sénégal saa si tembe mi ngi janoo ay jafe-jafe yoo xam ne saafara ko du yomb de ay fipp yoo xam ne mi ngi am ci seenu biir lii nag buñ ko artuwul natta jur jàmm ku ci mel ni Aminata Tall Mankeur Ndiaye Mimi Touré nag daal di wane seenu naqar ci biir APR googee yamunu ca naqar ga ña ngi koy daal di doxalee ci loowu mer yooyee yenn ci ay alliés ñoo fekk si leen si ku ci mel ni Abdoulaye Baldé bu UCS daal di dàq nag poste président bu commission défense ci assemblée nationale waaye ca wet gee yéen kaay bi ne ma harcèlement bi nga xam ne yeewi askan wi wàllu ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci opposition bi ñi ngi koy def nguur gi diggante si sug Macky Sall mii du yomb ci moom lenn nag buñ ko defee saa si témbee mënees naa wax ñu luy wàññi coow la ma Amadou Ba askan wi seenug laaj saa si tembe muy wàññi njëg yeeg yeneen waa ji daal daal di soobu nu mu gën a gaawee daar daar lu ko mooy nag coow li du neex a lijjanti 24 heures yéen ak ay sampub laaj président Macky Sall mbaadu dafa joxe bopp nag rocci làmmiñ am nag ndaje boo xam ni altine bii lay am diggante patronat bi ak association bu consommateur yi ma nga war a amee ca présidence te président Macky Sall moo woote boobu leen ndaje moom président Macky Sall loo ci mënti waxit waa parti bu nu fippoo l'enquête ma ngay teg day bañ mu dalaat ko moom président Macky Sall ñaar fukki ministre ak juróom ñett ñoo bàyyeekoo ci APR waaye fukk yooyu yëpp ay technocrate lan ak i allié allié yi nag daal di jël bu baax a baax poids ci biir Benno Bokk Yaakaar terewul bés bi le jour xamal ma ne bagaay day moo am ca biir parti socialiste xeexoo boo xam ne demale wuñ ko kaw de waaye rayante biir néeg mi ngi am diggante Serigne Mbaye Thiam ak Aminata Mbengue Ndiaye góor gi siis nag daal di cay dugg la leen naqari du lenn lu dul Serigne Mbaye Thiam mii ñu dugalaat ci biir gouvernement gi yéen kaay bi ne man rajo bu rëy dina am ci biir kàngamu parti parti socialiste yi niki tey terewul passation de service yaa ngi mel ni mbàccum gerte Walf Quotidien ne président Macky Sall nee na na lépp nooy Vox Populi ma président Macky Sall it ma ngay gaaral ña nekk ci assemblée nationale jàpp ne nag mën nañ bloqué liggéeyu nguur gi président Macky Sall ne leen kenn mënta bloqué ni nguur gi di doxee ndax nag moom président de la république nguuram ak i dogalam mënta dépendre nag ci biir assemblée nationale moom président kay mooy xool réew mi ni muy doxee te lépp lu muy doxee ci loxoom la nekk ba ci biir assemblée nationale la tudd ko masta am ci taarixu réewum Sénégal kon nag nañu arrêté loolooy dëgg président Macky Sall ne nee ñu majorité bi ñu am dafa gàtt lool waaye am nan majorité boo xam ne mën naa tax nag ñu doxal tribune loo ci man ci déggin moom Moustapha Niass ba tey ma ngay wéy di weddi de te lañ ko tudd nag ci coowal Swiss Secret Moustapha Niass ne bu dee turam nekk na ci ku ko yor na ko génnee booba président Macky Sall moom ma ngay xupp ña nga xam ne ñooy def naka sudul noonu ci assemblée nationale booba Abdoulaye Timbo moom ma nga jël ay conseillers di leen tàggat nag ci gouvernance territoriale ji ñu génn gis nañ ni ay coppite yu bëri dafa daal di am ci municipalité la ko war na muy daal di doxee moo tax nag tàggat nañu leen ci feem yees yii tàggat nañu leen ngir ñu xam ak loi yoo xam ni teg nañu leen ci réew mi tem yu yees yoo xam ni nag day wane collectivité territoriale naka lay doxee waaye tam ñoom ñii nga xam ni dañu nekk ay conseil yees man caa am ay xibaar mën a xam nag naka la ñuy doxalee ngir ñu mën a dem ci seeni commune en tant que ay conseillers municipaux ci seeni département wala ville war nag nees la itam naka la ñuy liggéeyee en tant que conseiller seenu defar ak dindi fan la ak itam gan sañ-sañ lañ leen may ci wàllu yëngu gi l'observateur ne ma ñaar fukki at gannaaw bi ñu ngi fàttaliku nag batalo joolaa gaa yi nekk ci combat boo xam ne ñi ngi koy xeex ca mu yàgg lool ña ca ñàkkoon ay waajur ba tey jotuñu seenu ndàmpaay xaalis ba di nelaw tribune yéene kaay ne ma boobu ca tiwaawoon pël ak jaxaay ay waajur yu bari ñi ngi xaar saa si tembe ñu daal di leen di jébbal kër goo xam ne mënees na fa dëkk vox populi ne ma boobu danger mi ngi ci jaww ji ci réewum Sénégal ay avion yoo xam ne mar day taali boobu boo moytu laalante mën na ca am ndax nag saa si temba ay militaire ak ay élé contrôleur ñoom la ñu teg nag ngir ñu remplacer ñi nga xam ni ñoo waroon contrôler te soobu ci gréew saa si tembe tribune yéen kaay na tës baa ngi de ak cigarette moo jotale bu kami ak Ifraka ba ñu gaañante Ifra mujj ñàkk bakkanam moom Sadibou ca hôpital ba mu nekkoon di faju fala la yégee faatu ga daal di daw rëcc lu ci mënti am mbokk yi nan ñaan jàmm te yendoog jàmm bi biti réew dañu koy dooree fële ci réewum Italie mu mel ni italien yi fas yéene dem ci mbañ gàcc gi ëllëg ak jàmm lay doon jëm ci wàllum élection législative ba nga xamante ne nag la ko waral bokk na ci rek chute bu gouvernement euh, bi nga xamante ne nag moom moo ànd ak coalition bu Mario Draghi euh, mi nga xamante ne euh, ci été bi ñu ak yenn mu mel ni nag dernier sondage yi nag dafa jox gagnant alliance dénommé alliance bi nga xamante ne moom moo dominé ci extrême droite bi nga xamante ne moom moo regroupé Euh, Fratelli euh, Fratelli d'Italia ak ni ngi leen di rek la Ligue ak parti conservateur bu Forza Italia scrutin la boo xamante ne dinañ ko amal ci euh, moment boo xamante ni li leen di wàllu koom gi dafa xaw a ndërmeelu ñu daal di wax ci réewum Ukraine mi nga xamante ne ne dina wàññi bu baax a baax présence diplomatique am ci réew ma Iran ci dëkk ba mu mel ni nag li ko waral du lenn du représailles ci wàllu livraison jëm ci wàllu arme Euh, bu Téhéran fële ca Moscou mu mel ni nag euh, bés bi nga xamante ne ab frappe russe dafa rek daal di euh, jaaroon ci drone iranien bi ba def benn doomi adama bu ci ñàkkoon bakkanam foofee ca port bu Odessa mu mel ni nekk na ab réponse boo xamante ne na ci acte hostile bu parti ukrainien bi nga xamante ne moom moo décidé rek daal di leen privé lii di ab ambassadeur bu Iran foofee ca réewum Ukraine nga xamante ne dañu ko accrédité woon ngir mën daal di réduire bu baax a baax euh, li leen di rek nombre de personnes diplomatiques ca ambassade bu Iran ba nekk foofu ci Kiev ñu daal di euh, wax rek ci tënk match Sénégal Bolivie bi nga xamante ne nag euh, dinañ ci gis retour bu Crépin Diatta mi nga xamante ne nag dafa manqué woon Coupe d'Afrique des Nations gi ñu génn ginnaaw nag ab blessure bu metti boo xamante ne moom amoon na ko tey jii nag euh, mu nekk kam comeback bu ki nga xamante ne moom moo di rek kii lee di Crépin Diatta ci biir équipe bu ni mel nga xamante ne nag dinañ fexe ba ñoom itam jéem ànd ak seen euh, naataango yëpp gagné li leen di Bolivie euh, liy jublu ci wàllub euh, coupe du monde bu Qatar bi ñu dëgmal mu mel Sénégal ak Bolivie tey jii la bu 19h jotee fële ca Orléans te itam mardi gi Sénégal dina daje tam ak réewum Iran fële ca Vienne en Autriche.